2010 2011 2012 la am xam naa nag ambiance su euh, su place souvenir bay tax Télé Futurs Médias bàyyi na ci xel dina ci ñëwaat bu baax léegi nag dañuy woo ki nga xam ne mooy Yaayu Mbaye mu daal ñëw euh, indil ñu li nga xam ne nag moom mooy euh, teranga ji ci turu waa Coof ah. voilà yaayu tourné ni jàkkaarloog nit ñi lii moom xeetu teranga lan la moom. dégg ñu la de. fruit de mer au four. fruit de lii. ay poulet la lii lan ay gens. waa mais képp yi ñuy képpee yére moom lu daajil daajil daajil daajil Pierre de Silva ndekete képp du pour yére rek day day képp ndekete képp du pour yére xool képp Pierre képp képp ngi nii xool képp maanaam mun nañ képp lii xool teel ni keppal fi gis ngeen ko képp képp yi non roopule waaw ginnaaw kala kala kala yéen tax ginnaaw la lay lay la la non non ah yow mi koy indi sax ci ñam xam nga mm, mm. mm. soor ma <laughs> xoolal Ndiaye Ndiaye gi yut xoolal war na rek lay def xoolal Ndiaye gi yut dama jox leen dama jox leen waaw lii la jërëjëf waay kon daal dafa am ah non il a non li li liggéey yëpp bi moo ci gën a neex xam ah, nga teg ko nii ah kamu chef de protocole chef de protocole personnel mais pas alimentaire dimbali ñu kamu ah taay ñun léegi nag dañuy seet ki nga xam ne moom mooy Cicelo ci Sadaga bi nga xam ne nee na da koo menacé de mort nan la ko Cicelo. jàngatee ak ñu nga ko dundee Pierre Kouassi da ak Ndiaye waroon na yàlla yonante bi Ndiaye ngi jël shawarma bi du ko dugal ci poosam di ci toog eh awa eh bu ko jox reer tey de <laughs> ñu seeti si solo barki Sëriñ Tuuba am naa lu ma metti yéen laay waxal ndax li nga xam ne moo nekk ci réew mi dañ koo war a wax am na ñaar ñoo xam ne ñu ngi wër di yàq sama der ñii ngi wax ne Cissé Lo moo indi tool yi waaye balaa ngay wax dara dangay ngay xam journal yi boo ko ibbee war a nga liir war a nga déglu rajo lan ngay dégg dama ne liste tuubaa bi bu ñu ko laal bu ñu ko jege bi Touba doonee Touba ba tey barki Serigne Touba kenn ñemewul aborder loo xam ne dafay jóge Touba nga ci dingat man sañuma ko ndax Touba laa xam Touba laa yoro waaye saa dàgga sa dàgga bëgg ngeen xam ne maag moom fii ci biir Touba danañ ko daggante ba mu saf sap tere naa ko mu jaar daaru minam bu fa jaaree dina xam ne du ma moromam bu jaaree mbàkke xewar dina xam ne du ma moromam yéen ñi nga xam ne mooy sama militant tamay wax ak yéen dama bëgg ngeen xam ne bu leen daw bu leen dellu ginnaaw na tàng tëdd biir. bul ma jaxase déedéet déedéet déedéet du ma d'accord mukk ñu ne borom Mbàkke moo ma Tuubaa moo ma Mbàkke bu leen ma dugal barke Sëriñ Tuubaa moo ma Tuubaa moo ma Mbàkke xam nga kan laay wër Sadaga wax ma fu mu nekk anam yaa man Sadaga yaa man Sadaga yaa man Sadaga ma ne fi ñuy waxtaanee ñu ngi ci booru biiru Tuubaa am na loo xam ne sëriñ bi sëriñ bi du ko nangu na ngeen ko baati ne nank te bañ ko ziare. kon yaa ñu saf ñu saf la mbir mi safante la kat saf fii sa saf la mbir mi safante la kat fii selo ñu saf la mbir mi safante la kat yaa ñu saf ñu saf la. doy na ma xamal leen ñaar sa dàgga ndax xàmmee ngeen ko. booleen leen ko bàyyee ci dëkk bi dina ma jaxase kilifa dëkk bi li nga xam ne moom la sëriñ bi wax moom laa wax list bi nga xam ne moom la sëriñ bi teg bu ko kenn teggi te dinaa wax ak président Macky Sall ne ko Touba dafa jot mu am statut moom boppam waaye ñi nga xam ne ñooy profité di yàqal président du ma ko nangu tey du ma ko nangu ëllëg du ma ko nangu du ma ko nangu leen di laaj nag yéen laay laaj ndax ma xeex ak sa dàgga war a ma baal ko jaru ko yaa ko man jaru ko yaa ko man jaru ko yaa ko man ñu ko sutee noonu nga ko mëne jaru ko yaa man def leen nag li ma bëgg mooy ñu xam ne man duma koo xam ne dama yee fitna barki Serigne Touba affaire liste bi bi ma ko yëgee dama ne tekk woo président Macky Sall ne ko àndal ak dal Touba nga amal affaire Serigne bi warta mer te kenn warta loo koo xam ne ab murit du merloo ab murit waaye saa dagga maag moom dama bëgg ngeen ëffal ñu ci àll bi nga xam ne mooy ginnaaw ka Kajoor il faut ma war ko ne duma moromam su ma ko mënee te tamit waruma ko daf may yëpp ay ca bëgg ma defal jaru ko yaa ko man fii ko yaa li ma bëgg moo xam mooy dafa bëgg may leen ma xam nga lu mu bëgg jaxase ma président Macky Sall ma ngi koy woo téléphone bés bu ne di yàq sama der te loolu waru leen ko seetaan da ngeen war a taxaw temm man ni mooy xeexee pour président yàgg fi ngeen koy xeexee pour Cissé Lo yàgg fi moo taxit ma dellu di leen di wax ne nay sax ci noppam ndax saa dagg loola ko métti bàyyi faalu bàyyi faalu Macky Sall kana yaay Baay Faalu Macky Sall yaay Baay Faalu Faalu Macky Sall yaay Baay Faalu Macky Sall yaay yaay Baay Faalu Macky Sall yaay Baay Faalu ko yaay li ma bëgg mu dégg ko bu ko déggee daw dee li mbër yi di wax ku ragal na daw ku ñeme nanga taxaw fi Cissé gi ñëw dal di saa daag ga ku ñeme nanga taxaw ku ragal nanga daw na murite solo ñëw dal ci kaw sa daga na mel lay jàng nanga taxaw ku ñeme nanga daw na baatine solo ñëw dal ci kaw sa daga ku ragal nanga taxaw ku ragal nanga daw Cissé Lo ngi ñëw dal ci kaw sa daga barki Sëriñ Tuba ku ragal nanga daw ku ñeme nanga nabar nabar Cissé Lo ngi ñëw maa ngi daanu leer Lamar ay ca ay ca bakk Serigne Touba maa ngi daanu leer Lamar Lamar way way way way